gaay ñu leen nuyu den ziar yeen ñi ci wonal por ñu wara ñoo ci benn vidéo wax ci Iliman Jay bi nga xamne tay defal mak ci bu reere ñom nak ay yeen naxar yoon tu mo ci am moy télé guéné bi ko télé guéné ginaaw bi mu defé mak ci bu am solo mak ci bu excellent ci dribbler ci ay pass dugal na benn bi def pass décisif da ay passion ci bi surface yépp bi mo non nek ay bi créer ay occasion yu bari yoon bi na mo non ay bi ñu tel ko guéné ñu ñëpp di waxtane Iliman Jay bu terminé won mak ci bi man na am sax bi gëna bari comme ni mais nak course bi mo am def na li mu bëgg a def te max bi gagné nañ ko loolu ak moom solo mais laata loolu ñu ci wax yi ñu ko jàngalati ñëpp reconnaître nañ talent am ginnaaw bi nga xamante ne coupe du monde bi dama na fa mën a boom ci dafa ñëwaat confirmé loolu wane ne man équipe nationale bu Sénégal damay ñëw rek bokk ci seen système ndax man maay joueur boo xam ne système boobu dugal ma football tey dribblé na mu réussir ay yoon yoon mu def passe réussir bu réussir mu nekk bii mu def biit dugal bi boo ko def ñi nga téye gëm ma yóbbu feneen fraw finance bii def la saa maa indi équipe nationale bu Sénégal duñ def loolu di ko ñaanal euh, xale bi gudd fa gën a wér loolu am club bu gën a mag ndax bi ne ci xale bi yéeme na sooy xool football sax moo a nekk moderne que football Sadio Mané moo fi nekk ak ñame entraînement bi ak sañ bi mais footballam dafa na bok sax yeen football am jour yu xawé muju comme kay bo xol ay ay Iliman Jay nga xolte ko melna ay Neymar waaw mom sen football dafa bok dafa moderne dal mais gay ko luma neko vidéo wéne ngeen abonné di commenter di partager merci beaucoup am ngeen jajeuf bu baaxa baaxa